PSE daal mooy phase un phase deux phase trois mille ci yam Macky Sall il développe le sous-développement au Sénégal. politique de rul caaxaan te ñu bare dañoo jàpp ne politique caaxaan la. bu ma gërëmee ummi itam nag dama ci boole sëñ daam jël na fi kàddu sànq mel na ni moom itam ah moo ummi daal xam naa ne déggoo nañu ba tax bésu tey bii mën a am ummi dafa am fu mu nekkoon wax na ko ba mu demee gis ne fii ay caaxaan la moo tax mu jóge fa parce que politique du caaxaan xam nga li sëñ a Bara Dolly wax léegi à propos bala ma continuer aussi euh, sama frère Pape Sayer dal na fi gàddu mooy responsable lu émigré yi ci nekk ci PDS diaspora euh, ak itam sama honorable collègue Mor Kane moom it jàmbaar la jàmbaar ju mag a mag ci liggéey bi euh, li sëñ Cheikh Bara wax léegi alal ji nga xam ne ñi ngi koy ronqi di ko yóbbu bitim réew senegal wax nañu ñoom ci seeni chiffre Amadou Ba ministre des nee na at mu jot senegal alal ji dina yokk téeméer bu ne juróom-ñaar dina ca yokk lu baree baree baree bare la maanaam bu fekkoon ne junniy milliards la daaw kon ren dina doon junniy milliards ak juróom-ñaar fukki junniy milliards moo ci mooy mooy yokk ci alal ci mais chiffre yooyu mu wax moom am na yeneen chiffre yu wane ne ndóol gi mi ngi gën a yokk Sénégal boo demee Fuuta am na ñeenti téeméeri junniy nit yoo xam ne waxuma gobar jaasi gobar jaasi mooy boo añee doo reer ñooña ñu leen joxut ñu reer dañuy dee parce que amuñu ko fii nu koy fii nuy koy waxe nii laa wax xam nga ne loolu yéeme na euh, kon te loolu yëpp politique bu bon moo ko waral sànq mi ngi wax ci euh, alal ji ñuy ronxi ci biir suuf si ca Kédougou mais loolee fa ne di or walla jama wala leneen cinq pour cent la ci senegal am maanaam téeméer bu ne juróom ya lanoo lan lanoo am noonu xam ngeen ne loolu euh, ba tey lu yéeme la euh, bu ko defee man dama yaakaar ne lii nuy def bu dee dëgg ci nun jaamu yàlla la parce que réew mi ak ni mu sonne ni mu toskare nit ñi ñàkk ak sénégalais ni mu bëggee boppam bëgg am dignité ñu fexe ba réew mi ndóol sax fi law fi kooku ku taxaw di xeex pour loolu jóge fi jaamu yàlla la ah, loolu nag nangeen ngeen ci góorgóorlu te bu leen ci dara jële ah bu loolu weesoo Touba gi moom naka jekk dañoo ànd ak Ablaye Wade te it wax nañ dëgg wax nañ dëgg de Abdoulaye dane murit laa am na ñeneen ñu ne murit lañu waaye Abdoulaye Wade de fa ñu daa jullee ca Ndakaaru julli iit nga xam ne daanaka mbaar sax amu fa woon Abdoulaye naka jekk di fa jullee ba yàlla demee def defee mu dem ba doon président de la république place boobee ñu daa jullee di quatre mille ñu soxla ko waaye am yeneen i kilifa yu ko moom Abdoulaye ne leen bàyyi leen ko ma lijjanti ko quatre mille mètres doon laaj Abdoulaye di joxe soixante mille mètres carrés quatre lañ doon laaj Massalikul Jinaan Abdoulaye di joxe soixante mille mètres carrés juróom benn fukki junniy mètres carrés mooy mooy six ñu ne déete waaye mu làmb poosam ne man dama di taalibe te jumaa ji taalibe bu ne da cee war a def jullit bu ne sax da cee war a def bu sax juróomi téeméeri million yii maa ko ci dugal wax wax wax Cheikh Ibra lu mu wax bisimilah jàmm yàlla dina bi du du du du warante du ay wax bu bare seen mbir mi mooy xam fi mu ne nga taxaw ca foofee ak xam fu mu ne du mooyu mel ni gisoo ko waaye Abdoul Ahad moom jëfam ak digganteem ak Serigne Touba ak murit mi ngi mel ni jant bi njolloor kenn du ko mais yamul foofu rek Abdoulaye Wade senegal yëpp la bëgg yëpp la dama daan ànd ak Abdoulaye Wade fu ne ci àddina ànd nañ nekk temps ministre fukki at ak ñaar fu ne ñu ànd xam naa fi mu teg réew mi ak fi mu teg Afrique ah Karim Wade nag sànq sëñ Cheikh Bara wax na lu am solo man dama am parti politique du ma PDS du ma PDS dama am parti politique di ànd jëf PADS barki démb def naa fii meeting Mbàkke lu mat ñaari junniy nit a nga woon mbaa ñetti junniy nit def naa congrès barki démb tant ba ma def congrès lu mat ñaari junniy nit ak juróomi téeméeri nit ña fa woon te ñi ci biti ñoo ëppoon ña ca biir ndax xaju ñoon ca kon parti laa yor mais euh, Ablaye danoo yàgg lool lool ba nuy ànd Karim Wade a ngi jàng moo si njéeg ca ca ca ca fële université Ablaye nekkatul président de la république mais Karim Wade candidat la président la république ma wax leen lu tax may jàppale Karim ak suñu parti Macky la tax naa leen wax lu tax Macky Sall la tax bu fekkonte ne Macky sal li mu def Karim Wade def ko kon wóorut ma jàppale Karim parce que dugaloon nañu ci bopp sénégalais yu bare bare bare ne Karim Wade sàcc la luubal na alal réew mi def na ni def na ni def na ni ba mu ko jàppee ne ko rawo ci kaso ñetti at Karim Wade mësuta wonk mësuta wonk am na ñoo xam ne bu ñu yendoo police boo leen gisee doo leen xàmmee loolu lu ma jëkk a la te pour man loolu dafa am importance parce que nit laay seet man seetuma juddu seetuma alal seet nit ki jikkoom laay seet ñetti ati yàlla tëdd na ko kase mësul ne uma muy benn ñaar ki tribunal bi ko àtte nee na Karim Wade mës geruñu ko nee na Karim Wade sàccut alalu Sénégal ñoo ko bind ci kayit bu ngeen demee fekk ko fa ñu ne aw ah, kon lu tax ngeen ngeen tëj ko ko ñu ne dañoo jàpp ne am na alal joo xam ne kenn xamut fu mu ko jëlee ñu ne kon ana alal bi Macky Sall dépensé na ñeenti milliards di wër alali ah Karim Wade ci àddina bi te gisut Pikini da li ma wax dama ne dërëm bi gën a tuuti CFA Macky Sall dépensé na 4 milliards di wër alalu Karim ci àddina bi te gisu ko kon kay moo ko raxasal moo ko fóotal boppam ah, comme fóotal na ko nag ba mu set ma daal di xool nag ay compétence am parce que wane naa set te du am compétence li ma leen di wax lu wér Karim Wade dafa compétent compétence xam mooy lan parce que bëgg naa réew mi bëgg naa réew mi lu baax la bëgg sa réew waaye nag ndax buñ la ko joxee di nga ko mën a yor doxal ko na mu war a doxe doxee loolooy différence nekk naa opposition man ca Senghor ak ca Abdou Diouf nekk naa ci biir gouvernement xam ni muy doxe nekkaat ci opposition kon am na lu bare lu ma xam Karim Wade mën naa yor Sénégal bu baax a baax waaw waaw su ko mënutoon ma ko jàppale de ma leen ko mu leer Abdoulaye nag sama sama sama la ci man nijaay la ci man xarit la ci man waaye nag kon it du ma ko jàppale waaye mën naa yor Sénégal te gis naa jikko jooju ci moom ah merci soxna si alors donc euh, dama bu ma sañoon daal yéen waa Touba lii dox lii nuy dox nu ko pour suñu bopp de yàlla xam na ko Sénégal a tax nu koy dox yéen jeunes yi yéen a tax nu koy dox kon yéen jeunes yi bu ma sañoon ngeen sol seenu dàll fu nu defee ñun. fukki kilomètres yéen ngeen def téeméeri kilomètres ndax gàddaay topp géej gi di lab topp désert bi di dee ba wow comme géej du avenir u bi avenir u bi fii la jom jooju ngeen am bëgg a faj gàcce googu ngeen am ba mu jaral leen loolu su ngeen toogee fii jàkkaarloo ko ak Macky Sall di ngeen ko fi jëlee def fi réew moo xam ne mi day doon bu ngeen gisee nag may waxee la xam naa ne Touba moom waaye dañoo bëgg a ñoom yàq wote Touba bu leen ko nangu Touba suñu wotee normal Macky Sall du fi am lu ëpp vingt pour cent maa leen ko wax quatre-vingt pour cent yi Karim Wade da koy am ko kon nag vraiment bu ma sañoon ngeen góorgóorlu te bañ a bu kenn xeet boppam sama mbokk mi daa woyof déedéet Macky Sall aw carte la yor yow borom bu mu woyof bi aw carte ëppale la ci dara kon nag na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax a baax xam nga fi mu ne nii defar nañu carte électorale bi am na ñu bare bare ñoo xam ne fañ daan watee toxu nañu te yëguñu ko sax xamuñu ko ah dix-neuf mille voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen jeunesse bi daal laa bëgg ñu organiser quartier par quartier ndaamaatu gi nañu organiser xam nañu ñi fi ne ñi ne fii ci ndaamaatu farag Macky Sall bëgg a bu guddee ñuy lëndëmtu di yàq wote bi nañu ko diggaale ak ñoom xam nga dafa am li tubaab di tuddee la croissance sant maanaam alal ji di yokk te yow ngay gën a ndóol xam ngeen bu ngeen demee réew mu ñu naa Congo Congo Kinshasa naan Congo Kinshasa réew moomu la fa ne ci alal amut beneen réew ci àddina bu bu bu fa bu mu am ñetti téeméeri at a ngi nii bés bu yàlla sàkk guddi ak bëccëg vingt quatre heures sur vingt quatre ñi ngi ronqi alal yi di yóbbu te jeexu waaye dem boo fa demee ña fa dëkk di ay congolais bu ñu añee du ñu reer amuñu lu ñu sol amuñu fuñ dëkk kon ku yaakaar ne pétrole bi gaz bi suñ ko bàyyee ak Macky Sall Sénégal dina changer da ngay nax sa bopp mbaa bu changer changer wu ndóol lay gën a changer très important mbaa boog musiba dugg ci réew mi nit ñi di xeexoo di reyante guddi ak bëccëg suñu moytu léegi nag nee na dem na alors cest man ma dafa am ñoo xam ne seen bopp li ci ne àndut ak développement fi du du du waa ñoom Macky rek eh. ci lañu ñu nag ci lañu waaye réewi Afrique yu bare bare ña jiite noonu la saa seen bopp li ci ne àndut ak développement mënuñoo yóbbu fenn am réew xam nga lu tax dem ca tubaab yi ñu ne wékk la wékk la bor gàll la juróom-ñaari milliards nga ñëw fii di bàkku bàkku ci gàddu ay boru juróom-ñaari junni milliards yow doo ko fay nun ñi noo koy fay xale bi bu jëndee tàngal ci bitig bi fay na lempo ñu bari xamuñu ko juróomi dërëm yow jëndee tàngal jarul juróomi dërëm ñeenti dërëm lay jar dërëm ba lempo la alors léegi on va payer di di di di décennie ñu di ko fay ci lan xaalis boobee bu ñëwee ñu koy def xoolal TER bi le junniy milliards la ñaar téeméeri milliards même bu dee ñoom nee nañ juróom-benn. téeméeri milliards même bu dee juróom-benn téeméeri milliards man dama am programme maa ngi ciy waxtaan ak Karim Wade ci affaire chemin de fer c'est-à-dire réew mënta développé te amoo chemin de fer saxaar dañoo war a am ay saxaar yu moderne xoolal fii màggal gi bi ñu ubbee autoroute bi ubbi nañ ko mais man Dakar maa nga ju fa jógee ajjuma euh, fukki waxtu ci guddi. samedi 7 heures du matin laa yegg si Touba parce que saxaar gi dañ ko tëye bu ñu defaree tronçon bi Diourbel Touba def ay saxaar yoo xam ne grand écartement lay doon 600 milliards yi boo ko ci dugaloon mais di nga mën a defar fii ay da koy dugal ñu am xaalis beneen bu bare bare boo xam ne mën nga koo leb bu boobaa def ko ci ay saxaar nit ñi lu ñu bay lu ñu liggéey dugal ko ci saxaar yi mu dem mais loolu mooy liggéey. mais mille deux cent milliards la ñu wax boo xam ne quarante kilomètres xaw ma cinquante kilomètres est-ce que loolu jaaduwul jaaduwul donc PSE daal muy phase un phase deux phase trois phase mille la ci yam Macky Sall il développe le sous-développement au Sénégal.